Euh, Mama Selbé tey xale yëpp a ngi daw di wutali géej gi parce que dañ naan dañoo bëgg a jàppale seeni yaay tey lan nga mën a conseiller xale yi Dakar ndax nan dañu toog ci seen peggu ndey yi sa yaay xëy rek di la gis ak ay bëtam di la ñaanal rek yaakaar nañ ne loolu mën na laa jëmloo ci kanam. man li ma gis sentir mooy lenn. bu fekkente ne amuloo possibilité dem euh, dem euh, bureau passeport ñaan sa visa soo amee mbokk bu nekk foofu mun laa héberger nga dugg ci avion yu wàcc ko kooku gàttandu la su nekkee amuloo benn possibilité bi ñu lay am na xale bu ma dégg ñu ne yaam daf ko jox deux cent cinquante mille mais deux cent cinquante mille yooyu yaam ci boppam bu ko jaayee woon téye téye téye doomam ci biir këram xale bu am douze ans xaw ma quatorze ans xaw ma seize ans nga di ko jox deux cent cinquante mille te nga yaayam nga xam ne kii xale la pourquoi nga koy yabal boo ko yabal fexeel mu am ay kayitam dugg ci avion yi nga koy gàttandu gàttandu ko xanaa loolu mooy sama doom soxlawu ma ko man sama benn doom laa am soxla mais dama ko soxla bi ma ne jox ma xaalis dama dem Maroc dama ne ko boo génnee kër gi dama lay saraxal mu wax ma waat ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ni ko soo génnee kër gi barke Seydina Muhammad dama lay saraxal dama naan denga dama def sarax après ma parce que xam naa duma ma la gisaat dafa toog damay condamner parents yi. parents yi ci seen bopp. yi dama leen di condamner pourquoi ñii bàyyi seeni doom ñuy dugg ci géej gi Macky Sall coronavirus bi gis naa mu def benn affaire géej gi yëpp ay gendarme ay gendarme la ñuy garder xale yi nangu ñu dugg ci biir géej gi à cause de coronavirus mais no continuer loolu. géej gi géej yëpp na fa def ay nit yoo xam ne maanaam ay policier dañ fay monter nga xam ne duñ xale yi duñ mën a jaar ci géej gi parce que moom mooy président de la république du Sénégal ginnaaw yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom moom la ñu sunu borom dénk réew mi moom la moom la yàlla dénk Sénégal mu war a wattu nit ñi te maanaam nit ñëpp Macky Sall mun leen a wattu mais ni li nga xam ne moom la ko fa defee am ñuy gàddee géej gi nga xam ne kenn du fi jaar su amee possibilité boobu tam na ko def. ah xale bu jéem a daw dem demal boppam nga xam ne du jàll hmm? Macky Sall mën te gérer ñëpp nit ki daal boo juree sa doom jéem koo mënal soo ko mënalul ah géej gi lekk ko rek li ci dee bëri na torop man d'accorduma ci ay dugg gaal naan da ngay dem Barça ñoom dañoo tànn Barça wala Barsaq yaakaar naa Barsaq mi ngi leen jël bu baax a baax te liggéeyagoo dara ci àddina ah war ngaa xool li nga bëgg. man de barke Seydina Mohamed wallahi alazim su ma bëggoon a dem Europe dem naa bu yàgg waaye li tax may dem Europe daal mooy dem dem bureau passeport ñu may ma visa ma dem dugg ci avion yi ndànk boo duggee dañ lay tegal sab añ nga añ ba suur waxtu wàcc jotee nga wàcc ndànk doo am benn problème boo yeggee la war a gàttun dana la gàttun soo amul possibilité cinq cent mille ya nga jël di ko fay nit mu di la yóbbu te yóbbu ba moom ma la yóbbu sax wóorul ndax moom dina yegg wala du yegg ndax du yegg cinq cent mille boobu jël ko nga dem commerce nga dugal ci ay ginaar seen kër di ko jaay da ngay am dara wala nga dem pete seen jënd ci ay dàll man li xale yu xale yu góor def ànduma ci ak ñoom vraiment bugguma sax sama sama réew laa am Sénégal laa am mooy sama fépp bugguma sama benn doom ndax ñëpp samay doom lañu ndax man damaa damaa doon yaay lii metti na ma waaye man mënuma ci dara loolu su ma yëgoon ba ñuy dem kenn ku seen dama naan la doo dem parce que bëgguma lool man dama bëgg sama réew yokku sama askan yokku nouvelle génération yi baax mais bëgguma ñoo xam ne ñoo war a doon président wala ñu doon ministre wala ñu doon ay imam wala ñu doon leneen dem liggéey gi di leen lekk